mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bi alayhi salaatu wa salaam di sant Cheikh Ahmad Bamba di jaajëfal xaadim ñu ñëw fii tey ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy ashukru bisub Cheikh Ahmad Bamba moom mi nga xam ne moo waa afistu machina anit dafatiri fala takun xan xidmati bi fatiri suñ waay nee na wat naa loo xam ne nekkul ci kaggu kon boo may liggéeyal bul tayal seen taala mu nii tey ñu ngi ci bis bu mag mooy màggalu Tuubaa san sant fii ci Argentine tey suñu taala mooy bis bi ndeysaan faw xanaa jéggi daye loolu ndeysaan yow bi nga xam ne yaa jiite daara bi ñu ngi la suñu taala am noo gisee bis bi tey ci alhamdulilahi rabil alamin suñu Abdoulaye Sarr noo lay jaajëfal bu baax di la siyaare di siyaare mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi di leen jaajëfal bu baax bis bi nag bis la boo xam ni am nañ ci mbégteel mu rey ndax mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi wax dëgg yàlla taxawu nañ ko niñ ko war a taxawoo ci anam bu rafet bu sell bu yiw boo xam ni jiggi na dayoo kawe na njort ndax mboolem nun ko waaja wala nun ko waajale wan ak nuñ ko xalaate woon rek maanaam romb na ko waaye nag mbirum Sëñ Tuubaa moo mel noonu ndax Sëñ Tuubaa mbirum maanaam mosoo dégg mukk ñu ni bisab démbam moo dàq bisab maanaam bisab démbam moo dàq bisab tayam jeex na Sëñ mbiram yëpp maanaam moom day lu maanaam lu gën a ñëw rek mooy dàq li paas moo tax màgg màggalu daaw dàqan mosoo koo dégg waaw moo tax kon ñun alhamdulilah bi ndokk biñ tàbbee sëriñ bi jeex ci tàkk nga xam ne suñ lépp ak suñ fépp moo mënu ci dara lépp sëriñ bee ko moom kon ñoo ngi soñ mbokki taalibe yi soññ mbokki julli ñu gën a ñu gën a góorgóorlu gën fonk liggéey suñ Tuubaa bi te gën koo jàpp tey teew ci daayira yi tey teew ci daayira yi fi ñuy daayira alxames mbokki taalibe yëpp di ci teew di teew ci waxtu wi buñ ñaanee ñëpp dem ñu fonk liggéey bi gën a am jom gën a bëgg sëñ Tuubaa gën koo fonk am murit day dox ci ndigal sax ci ndigal dox wëy ca ndax ndax wëy ca wëy mooy tax nga am ca woy wooy deng ci sëriñ bi buñ ko wecceek dara ndax mooy suñ lépp mooy suñu saayir mooy suñu baatin ndax boo déggee mu la waqti la xawaaji lësi na daamoo fexeen matan waxam lu maaraamu mooy képp koo xam ne sax nga di ma liggéeyal maa ma faj say aajo te faju ko aajo rek saa yi reno baat la nit la taalibe yi bëgg kon nag sëñ Abdoulaye wax dëgg yàlla ñun daal sant nañ sëriñ Tuubaa bu baax baax bég nañ kontaan nañ ci mbokki taalib bi yëpp wax dëgg yàlla ndax taxawaay bi lépp rafet na ak mboolem ñu fi teew ñëpp waa daayira si Ahmad Tidiane si suñ mbokki waa kër seex yi maanaam suñ mbokki waa laayeen yéeg muti yéeg ñëpp a teew rek fépp fooy nekk ci réew mi rek teew nga ci liggéey kon daal suñ xool seet na kontaan nañ baax wax dëgg gërëm nañ ñëpp ma ndax liggéey bi mooy mbokk mi fi tuubal léegi nga xam ne jar na sol dal weñ di ko dox ba keroog dàll yi di xar ngir fekkee jataay boobu te yàlla def na fii ci réew mi saa suñ fi defee màggal dinañ fi am dinañ fi tuubal kenn wala ñaar loolu moom wér na kon nag loolu nungub liggéey la kon nag yàlla na suñu boole dimbali defal ñu jàmm taw tawfeex defal ñu sutura ñu teew ku déwén yu bëree bëree bëri incha allah taala déwén bu ñëw rek gën a dàq gën a taw feexe gën a murite def na dëgg-dëgg taalibi kon bëgg nañ kontaan nan wax dëgg mat na matale na euh, sëñ maam Thierno Ndaama Daaru ñu ngi lay tubal bu baax mu mel ni enregistrement bi ñu defaat loolu moo sabab maanaam woote bi ñu ngi lay ci tubal baax xam ne wax dëgg yàlla sa jot bëriwul ndax foo toll yaa ngi saytu liggéey bi ak fu mu toll Euh, sëñ Thierno Ndamal Daara mu mel ni yow li nga xam ne mooy wàllu yaxanal ak saytu barab bi ak liggéey bi muy wàllu organisation si moom dafa dogal mu tege ci sa loxo ñu la laaj ren ñu gis lu mucc ayib yow ak noo maam nan nga liggéeyee ba am maam lu toll nii ak ni mbooloo mi leen wuysee ak ni ngeen ko organisé ba mu mucc ayib nii ba ñëpp mën cee am na ngeen liggéey liggéey bu toll noonu. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar comme ni nga waxee temps bëriwul ñu ci bi sëñ Touba bi nga xam ne moo moom sant la woote ñu ñëw ci tey sant yàgg koo def nag waaye nag ñi ngi sant yàlla ndax ñu bari ñi ngi wax ne organisation masala dañ koy sant Serigne Touba rek ndax bisu sëñ Touba moom teyam ñu ne day gàcceel démbam te boo gisee tamit ñu man di chaque jour chaque année ñu mën di évoluer dañuy nangoo diglu critique di nangoo diglu ñi nga xam ne ñooy ñëw ndax nit bu fekkee da nga bëgg di organiser muy jaaree faaw ngay diglu ñi lay critiquer ak ñi nga xam ne ñoom nga ko seqal ndax mbooloo mi fi ñëw ñëpp sëñ Touba rek lañ bëgg kon te sëñ Touba dafa woote eh, sant ak mbég kon nanuy fexe ba ñun suñ kem kàttan ku fi ñëw rek dangay ngay bég da nga xeewlu ba doyal da nga dégg xas day neex danga nga dégg alxuraan da nga gis kanam kanam gu leer te loolu rek mooy jëkk dëgg sant gi mooy bis bi waaw kon nag loolu lépp lu ci jag rek dañ koy sant Serigne Touba bu baax di ñaan yàlla mu gën noo yokk kàttan te tamit waa dëkk bi wax dëgg yàlla ay jàmbaara ndax lépp lu leen laaj sëñ Touba fekk nañu ca kon nag ñun loolu bu ñu ko defee dajale seen kii jox na lu def lu dul góorgóorlu pour mbir mi mën a jëkk waaw jërëjëf naa mel ni kaddu yi mat na matale suñu taal xam loo koy dolli waaw liñ ciy dolli mooy xanaa di jaajëfal mboolem kuréel yi nga xam teew nañ fi yëpp di ko commencé ci daayira soxna jaara bi fi nekk te soxna ajaar day xadi jiitu ko ñoo ngi leen jaajëfal di seen teewaay rafet na lool uh-huh. di jiital di sant tamit maanaam waa daayira soxna jaara bi fi nekk te soxna Mariama Ñang moom it jiitu ko muy daayira Tuubaa bi moom it wax daal ñoom gis nañ seen teewaay di sant sëriñ Mouhamadou ma mi nga xam ne moo jiite fédération Tidiane bi fi nekk yëpp ñoom it wax dëgg teew nan ba barkeelu fi fi wax dëgg ay addi yu am solo ñoom ñëpp ñu bokk teew ànd ak ñun liggéey bi ci tàmbalee ko ba ci jeexantal bi di sant tamit maanaam mboolem mbokki taalibe yi nga xam ñëw nañ fi mooy suñ mbokki naar yi nga xam ne ñooy imaamu Alberti bi wax dëgg yàlla teew na fi imaamu jumaa yi onse tamit wax dëgg yàlla teew na fi ak maanaam sëñ Moustapha Sène mi nga xam ne moom it maanaam kilifa la ci dëkk bi nekk intégration moom it teew na fi ak mboolem invité yi nga xam ne teew na fi muy góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñeeg ndaw ñi ñoom ñëpp ñoo leen sant baax di leen gërëm di santaat bu baax tamit waa Big Deal Imsihou bi ak maanaam Touba TV yi muy sëñ Gambe ak sëñ Góora seen taxawaay rafet na liggéey suñ tuwaay ñoo ngi koy yaatal baax a baax tey def nañ ci liggéey bi mucc ayib set na bi lépp leer na wax di yàlla jottali leen ko yaatal yaatal goo xam ne maanaam foo leen fu ni nekk ci adduna bi rek maanaam man nga man yaa topp kon na wax di yàlla ñun daal kontaan nañ te bég nañ sant nañ mbokk taalibe ñoom ñoom suñ maam Thierno yor président organisation bi ñoom suñ Bamba mi nga xam moo topp ci man te daal lépp lu ñu war a mu koy taxawu ak maanaam suñ Cheikh Ibrahima mi nga xam moo yor euh, culture bi wàllum alxuraan bi nga bokk ci kuréel boobu nga xam ne lépp rafet na jàng nañ xës li mu xësida yu bëree bëri lu mu gàtt gàtt jàng nañ lu mat ñaar fukki kaamil yu tegal kon nag loolu ñaar fukki kaamil ak juróom yu mat sëkk jàng nañ kon nag loolu xam nga du liggéey bu ndaw ndax sëñ Tuubaa ko jàngal bisub bisub bisub 18 safar ah. ko ci jàngal maanaam ñaar fukki kaamil ak juróom waaye sëñ bi loolu kawe na kon daal ñoo ngi ñaan képp ku fi ñëw suñ borom faj sa aajo mhm. saahiran wa baatinan lépp lu fi nit fas àndaale ko fi uh-huh. ñoo ngi ñaan ci barke alxuraan xasida yi uh-huh. maanaam sa aaju ji faju ba kawe sa njort ñoo ngi koy ñaanal taalib yëpp di ko ñaanal jul yëpp suñu xol sedd na kontaan nan jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ maam Kenno ñoom liggéey bi waaw di sant rek di santaat sëñ Talla nga xam ne moo ci liggéey bi ak sëñ Bamba ak mbooleem ñi xam ne ñoo ne ci waañ wi ñi nga xam ne ñoo ne ci kulaa muy kuréel goo xam ne ay jàmbaaran di santaat nag waa dëkk bi di leen xam ne nag ñi ngi leen di lépp loo xam ne gis nañ ko jaarul yoon wala ñu jàpp na des na ñi ngi leen koy tuubal xam ne buñ sañoon ko fi ñëw da ngay bég waaye mbooloo moo neexut a organisé waaye nag ñi ngi leen koy tuubal te xam ne tamit lépp rek ñu ngi koy duubal suba sëñ Tuubaa di ni ko sëñ Taala waxee rek xam ne mbooloo moo ne organisé waaye amoon nañ yéen a lépp jaar yoon te waa dëkk bi tamit xam nañ loolu ndax boo gisee bis bi ñi koy xaar mooy bari fu nit ne ci àdduna tubaab bi dañ koy laaj ñoom sax ñoo gën a bari nit ñi ñuul ñi kon nag damay wax sama taale bu kenn waxati kenn nekku ci dëkk bi dëkk bi maagal sëñ Tuubaa bu nit ñi ñëw sax junne yi ñëw def ndax yow doo xam nit ñi fu xoolal lii ni mu mel rek kon nag ñi ngi jéegul ñëpp di leen waaw di xam ne wax dëgg yàlla bëggoon na ñoom ñëpp ñu def ko ñoom ni ñu ko bëggee waaye nag dañuy jéem rek chaque année xëy na ñu gën a yeesal gën a defaraat waaw. waaw maa liñ ci mooy di santaat kuréel yi. yi nga xam ne ñoo doon jàng xasida yi ku ci mel si Cheikhouna Lo ak sëñ Mbaye Dia mi nga xam ñoom ñoo jiite njàngum njàngum kuréel mi wax dëgg yàlla ñoom def nañ ci taxawaay yu am solo comme ni ko sëñ maam Thierno waxee waa réew mi ñuy sant mbokki taalibe bi yëpp wax dëgg yàlla mboolem lu leen ma sawoo ci liggéey sëñ Tuubaa bi fekk si nannu ci wax da yàlla wóolu nañu ci lépp loo xam ne lu jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ndax lépp lu leen mas a woo maanaam wuy su nañu ci ndax màggal gi bi leen ci woo sasi ñoom ñëpp noo jaayante mboolem nin ko xalaate woon maanaam kawe na njort kon nag ñoo ngi sant waa réew mi yëpp di jaajëfal mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp di leen ñaanal tawfiix ak taysiir ak saahadat daa den xaqan ak aajo ju faju ak mbir mu jub bi xormati quraanu karim asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa mu mel ni incha allahu taala mbokk yi ñu ngi leen jaajëfal bu baax di wax ni alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah ala kulli al si borom dogal na yëf àgg na ci jàmm. mu mel ni sëñ mbokk mi mi ngi may wax li nga xam ne mooy lim bi nga xam ne mooy limu alxuraan di kaamil ñaar fukk ak juróom yi lim bi dafa takku ba jéggi dayoo waaye incha allahu taala ci yeneen gitaay yi dinañ ko karmat wax leen ne leen lim nangam lañ ci jàng ci xasida mbokk kan ñi wax ni yàlla na sama defal ñëpp jàmmi àdduna defal ñu jàmmi àlaxira màggalu Argentine 2023 ñuy ñaan yàlla nañu yàlla defal ay màggal yu bare bare bari barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñun ak ci beneen numéro incha allah taala jërë ngeen jëf